yaakaar naa ni gars yi dañoo di yokk cere dolli ñeex mu mel ni am na liggéey bu mucc ay boo xam ni mi ngi leen ci xaar liggéey boobu fu ngeen ci toll. waaw Alaaji Malick euh, lu jiitu loolu ma def benn présentation sommaire ci jëmm ji nga xamante ni tey moom moo jiite structure bi. muy Serigne Fallou Mbacké muy Serigne fallu Mbengue. Mhm. di doomu Sénégal. Mhm. di doomu Thiès. Mhm. waaye it di doomu Afrique yëpp nag. ndax euh, certes. Thiès la juddoo fi la màggee fi la yaro fi la defee ses premiers jours mais tamit fi mu ne xelam ak bëgg-bëggam yaatu na ba daanaka law na Afrique muy jëmm joo xamante ni nag euh, lii nga xamante ne tey jii moom la ñu dëkkmal fas yéene koo def lu jiitu mu koy def doon nekk ci sociale di dimbali xale yi di ko wëlbatikuwaat di ñëwaat Sénégal di delloo bokk ak li new lu muy am mu koy bokk ak ñi nga xamante ne ñoom la ko war a bokkal damay fàttaliku suma ma mosaan bi waxtaan moom danaan ma man njaw cees li ma am Sénégal moo ma ko jox <laughs> kon man su ma goree lu ma am dama ko war a delloo Sénégal ci loolu la nekk ci loolu la nekk di ko dox ba tey jii sa borom dimbali ko mu am lii nga xamante ne tey jii moom la taxawal muy structure bi ñu tuddee ko Vision Africa te si nga xamante nag Alaaji Malick moom la ñuy pro moom la ñuy préparé mhm. euh, réussite bi nga xamante ni moom lañ ciy njëkk a am mhm. moom mooy bien avant tey jii ñuy organiser test yi ci anam bi format bi ñu koy organiser. Mhm. le président Fallou danaan ñëw Sénégal bu demee nekkoon à l'étranger di wut ay partenaires su demee noué foofu ay relations fexe ba buy ñëw Sénégal indi fi ay recruteurs organiser ay test di ko may xale yi nga xamante ni ni tey jii. Mhm. ñoom ñoo mën a monnayer seen talant à l'étranger. Mhm. alhamdulilahi rabil alamin yàlla defal ko ci sutura. defal ko ci ndam ba xale yu bari jaar ci ay loxoom tey ji ñu nga foofu di eh, jaayante foofu ngir li nga xamante ni moom lañu bëgg muy seen talent boobu sans defal leen ko muy ay tawféex ñu indiwaat ko ci seen njaboot ci loolu la toog mu xalaat mu waxtaan mu ne benn loxo xëy na du tàccu ñaari loxo mooy tàccu ni may def mooy damay fexe ba lii nga xamante ne ci laa nekk ma yaatal ko waaye fecc danga koy tàmbalee ci sa ñi la gën a jege. Mhm. ci la ñëw mu waxtaan ci ak ñun ni moom nag léegi li muy def moom mooy. Mhm. fexe ba structure structure bi nga xamante ni moom mooy Vision Africa mu yaatal ko waaye yamu ci yaatal ko mooy di ci déglu suñu xalaat ba pare nag di di ko dégg ndax déglu rek neex na waaye dégg gën a neex. dégg gën a ñuy déglu. Mhm. waaye daf ñuy dégg ndax du def dara moom dong. lépp lu muy def dina ci waxtaan lépp lu ñu ko wax dina ko jël su doon xalaatama gën a rafet sax bëgg lu baax ak bëgg yaatal dina tax mu bàyyi xalaatam def suñuy xalaat mm-hmm. loolu nag su ko nit dee def tey jii bu nekkee ciw yoon warees na ko ñaanal yàlla yoon woowu mu dëgg dëgmal sans borom dogal mu yegg ceeg jàmm ak salaam ci la ne cette année si ni ñuy def moom mooy mbir mi ñi koy woo bari na ñi ko soxla bari na tey di wax dëgg yàlla yàlla nga ko ciy defal tawféex boobu ba léegi mu ngi ciy def ay loo xamante ni ni exploit bu extraordinaire la mm-hmm. ndax fii Sénégal da ngay gis ñoo xamante ni bu ñuy organiser ay test dañuy fexe ba di réunir ay xale di leen laaj ay participation yoo xamante nii dafay xaw a sax chair mu ne nag moom comme bi mu ko daan def. Mm-hmm. daanu laaj dara. waaye nag demande bi dafa xaw a commencé bari. dafa bari trop léegi ni ñuy def mooy nañ leen jéem a def fexe ba def benn participation symbolique xam nga ki lay laaj quinze mille. Mm-hmm. nga mën cee am chance. mën mm-hmm. cee dem à l'étranger gagné ci ay milliards witu ci dara. su ci doon wicc dara yaakaar naa ni dina gën a bëri loolu waaye ci lañu nañ ko def des participations symboliques ne serait-ce pour limiter place yi nga xamante ni moom laa am waaye mu ne su koy def sax xolam sax neexu ci ndax li ko loon mooy ñi nga xamante ni nii amuñu sax doole jooju hmm. tey jii nii ñu mën a ñëw tant seen sens yàlla def buñ ko fa amee ñu mën a dem à l'étranger moom loolu moom moo ko loon parce que moom ci sociale boobu la nekk ci lay dund ci loolu ci lañ ne nañ ko organiser cette année ci noonu ci format boobu alhamdulilahi rabil alamin mais aussi muy quelqu'un ko xamante ni il est très administratif yamul ci loolu daf ne mënuñu organiser benn mbir bu toll noonu fii Thiès waaye yamale ko suñu biir mu ne déedéet comme réew mi dafa am yoon nañu fexe ba képp koo xamante ni dafay am ndombay tànk te war koo yëg ñu fexe ba mu yëg ko ci loolu ci la xaatim ay bataaxal fexe ba dem ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi yor ay ndombay tànk ñu mën koo comme ay ay préfet mhm. ay ñi nga xamante ni tuuti daaw euh, ci ki nga xam ni mu nekk ba jot Diattara xam nga ni kooku boobu mu woon ministre des sports kooku ndomba tànkam yaakaar naa jégg na doon mu ngi woon ci jotaay boobu ma dolli la loolu rek nga kon ne waaw gis nga noonu nag la koy defee mhm. pour pas plus tard que mhm. yàggul dara dara dara président Boubacar kamara mhm. moom mi invité woon na ko ci ay test yu mu bëggoon a organiser. Mhm. mais tests yooyu mu mujjul aboutir. Mhm. kon donc moom naka jekk noonu la musa mel. dafay bëgg xale yi. di gis ni ñii nga xamante ni ñoom ñoo leen di gouverner. Mm-hmm. ñoom mën nañoo saafonte ak ñoom mën nañoo jëflante ak ñoom. Mm-hmm. moom yàlla dimbali na ko ay loxoom set donte xale la. mu mën a jëflante ak jëmm yooyu. Mm-hmm. ci noonu lay doxee moom moo tax nag cette année ci noonu ma la ko doon waxee El Hadj Malick. mu ne nañu fexe ba xaatim ay bataaxal. fexe ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi yor ay ndombay tànk. ñoom ñëpp ñu mën a fexe ñu jot ci mbir mi. ba ëllëg lépp loo xamante ne nii ruus na ci. ñu xam ne kii nga xamante ni moom mooy organiser lii nit ku bëgg yoon la nit ku tege ci yoon la <laughs> waaye nit ku bëggut a jàll benn yoon li nga xamante ni mooy sart réewam la ci loolu la def ba képp koo xamante ni war ngaa jot bataaxal jot nga ci bataaxal boobu inchaa allahu rabbi ñuy organiser test yooyu à l'ENOA du 22 au 24 xam naa ni sax moom euh, euh, dama xe moom ni mu bëggoon sax gënoon naa yaatu parce que mhm. xam naa da doon wax naan nañ ko démarrer le 21 22 23 mën na laaw ba bi mais xam naa ne daal yéeneem yaatu na loolu loolu daal kooku daal moom mooy Serigne fallu Mbengue loolu moom mooy li nga xamante ni moom moo nekk suñu kanam ñu dëgmal ko di ci woo ñëpp la ci santit yow bu baax a baax ci taxawaay bi nga xamante ni am nga ko ndax keroog rek mu ngi ma koy wax nan ma alaaji Malick de yéene ji mu am moom mooy bokk ci groupe bi waaye moom yamul ci bëgg bokk ci group bi dafa bëgg sas wasaare li nga xamante ni moom la ñuy liggéey nit nag su fekkente ni danga nga doomu Cees mhm. gis doomu Cees bu mel ni yow mu yëngu ci lu baax mhm. nga ñëw teg ci sa loxo naka jekk noonu nga mel mhm. kon soo ko defaatee moom sant na la ci gërëm na la ci turu waa Vision Africa bi yëpp Aladji Malick TV euh, mooy internet yi Aladji Malick TV vraiment di di kontaan bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy def maa ngi suivre. ah dëgg la merci ci ci réseaux sociaux yi. merci beaucoup. bon vraiment ngay def liggéey bu am solo. ma la si ma la si di di nuyu ñu ni ñu ni seetaan ñëpp. Mhm. Euh, bon vraiment comme ni nga ko comme ko waxee. Mhm. Euh, defe naa vision africa mom mhm. euh, mbiru ñëpp la. mbiru ñëpp a ci bokk. waaw ndax président Fallou Fallou bi mu initié lii c'est-à-dire ñëpp la si boole ndax defe naa suñuy rakk ak suñuy jarbaat ak suñuy doom rek si siy dimbali dëgg defe naa moom bu fekkoon euh, moom képp la defe naa mën naa liggéey lu ko mën a dundal wala lu ko mën a lu ko mën a jariñ dëgg la mais bu bàyyee lépp ñëw di jàppale xale yi nga xam ni vraiment ay talent rek nekk fi te xam nga fii moom Euh, defe naa bari na ay talent mais génn moo yombul. yombul waaw mais bu yàlla bu yàlla defee mu mu nekk à l'étranger doon pratiquer football euh, yàlla dogal euh, carrière am arrêté. Mhm. deful leneen dafa continuer ci sport. ci sport bi wut ay partenaires. Mhm. indileen leen vraiment pour jàppale football football thiessois mën naa ni football sénégalais en particulier parce que defe naa xam naa ñu bari ñoo xam ne man jot naa nekk bitim réew. gis naa xale yi nga xam ne ñu la fa doon indi. du Cees ak lan dëkk. waaw xale yi jóge nañ fu ne. di ñëw waaw Dakar yi ak région yëpp daal. mu ngi noonu am solo kon donc mbir moo xam ne la bon na am na am am na solo daal. Mhm. Hmm. mu mel ni ginnaaw bi nga résumé li nga xam ne mooy jëf ji ambition yi nga xam ne nag daanaka tey jii taaw amoon na te mu am solo mais ren dafa mel ni gone yi dañu gën a am confiance ci Fallou yaakaar naa daal dem ba mujj sax ni léegi arrêté na bindatul kenn parce que euh, maanaam loolu noo ko gis liggéey la wala. waaw ambition bu am solo. waa mooy comme li ma li ma li ma doon wax sànq rek xam nga. Euh, li muy li muy def defe naa du daaw rek. du daaw rek waaw. bon lu lu yàgg la te processus la aussi. Mhm. ndax euh, lépp daanaka juróomi at. Mhm. bon defe naa mu ngi ci euh, mu ngi ci mu ngi ci mu ngi di jàppale jàppale xale yi. social bi quoi gis naa ñu bari ñoo xam ni euh, fekk ni nañu leen ma ma ma ñu fekk ma bitim réew. Mhm. waaw loolu aussi tamit dafay lu donc dafay lu am solo bu fekkee daf koy daf ko daf koy continuer. Mhm. Euh, bon vraiment duñ mën du dul encourager ko. Mhm. mais bu fekkee comme li ngay wax naan ay perspectives man defe naa. continuité la. continuité la quoi. waaw lu moom fi mu tàmbalee woon rek lay yokk. Mhm. parce que récemment amoon na ay xale yoo xam ni si mouvement nawetaan mi la leen jëlee. Mhm. tey jii may wax ak yow ñu ngi joué euh, championnat national en Espagne. parce que donc te ban fa yeggee ñëw ñu rek jaar ci centre yi dañoo ñëw rek ñu intégré leen ci club bi ñu ñu ñu signé fa ay ñu ñu signé fa contrat professionnel. Mhm. yàlla leen fa yàlla defal jàmm. ba ñu joué si club yu mag yi. kon donc loolu boo gisee da xam ni. après liggéey bu liggéey bu liggéey bu am solo la. parce que comme li yàgg a wax rek tubaab yi ma xam nekkuñoo nax. c'est-à-dire rek pour tànn tànn yaa ma neex tànnuñu pour tonn ku leen neex ku ñuy tànn aussi dafay fekk mu am talent ku ñuy tànn aussi dafay fekk mu mu am capacité yi nga xam ne moom lañ bëgg surtout moom partenaire yi mu am muy football espagnol ñëpp xam na ni football espagnol rigueur bi ci am ñëpp xam na ni football espagnol tactique bi ci am ñëpp xam na ni football espagnol football espagnol technique bi ci am. il faut pour nga pour nga mën faa intégrer il faut nga am yenn qualité yi kon donc boo demee ba mën a euh, mën a liggéey ak ñooñu. Mhm. Euh, bon vraiment loolu dafay. dafay loo xam ni. dafa dafa mat a dafa mat encouragé. may lancer un appel. Mhm. Euh, bon vraiment ñi fi nekk. Mhm. ñu jàppale ko. parce que xam nga ndaw bu fekkee mënoon naa dem def leneen. mënoon naa mënoon naa dem liggéey jëriñ boppam. mënoon naa dem liggéey jëriñ jëriñ famille mais defu ko dafa dafa opté pour jariñ nit mhm. donc nit moom bu fekkee dafa opté pour jariñ nit ñi. Mhm. bon dafay dafay baax aussi ñu ñu dooleel ko jàppale ko mu loolu gën a gën a gën a gën a gën a gën a yaatu. gën a am solo parce que defe naa benn jeune boo fi jël. Mhm. mu nekk nekk professionnel. yàlla ubbi ko ay wërsëgam du famille rek lay jàppale mais moom it dina mën a ubbi jàppale koñ bi mu dëkk. jàppale askan bi mu bi mu bokk. mu am solo baax kon kàddu yooyu mujj yëkkati ci li nga xam ne mooy jotaay bi waaw mooy euh, comme euh, ni mu ko daan defee. Mhm. chaque chaque année mu ngi organiser benn événement bu mag. Mhm. le le vingt vingt et un. Mhm. Euh, vingt deux et vingt trois. vingt deux vingt trois vingt quatre. noonu la waaw. waaw muy muy muy taxi yoo xam ni. bon vraiment xale yàgg na leen ci yàgg na leen cee jël leen yóbbu. bon di di wax jeunes yëpp nag aussi ñëpp nu ñëw. bon vraiment nañ ñëw en masse bon vraiment ñëw xool liggéey bi li ñu siy def xam nga par affaire bi du du participer rek. Mhm. mais nga ñëw xool li ñuy def loolu aussi dafa am solo. nga mën a préparer pour yeneen échéances yi ñëw puisque comme li may wax rek ay partenaires la am comme ay partenaires la am du fii rek la yem. lii mooy première phase bi ñoom ñu xaar beneen phase bi kon donc ñu siy woo jeunes yëpp di woo acteurs euh, sportifs yëpp di woo euh, bon les entraîneurs di woo. Euh, les joueurs bon vraiment ñu ñëw euh, adhéré si projet bi parce que defe naa njëriñu njëriñu ñëpp la jërëjëf